jërë ngeen jëf di rafetlu ànd beeg Equivox TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu koy dooree rek ak wopp ba coronavirus tey ci àjjuma bi ci 2102 euh, tests yi ñu jot a réalisé rek 184 ñoo ci jot positif ci 184 yooyu nag ñu ci am 64 cas contact 120 cas communautaire ak 3 euh, décès ak 166 yoo xam ne rek faj nañ leen ba ñu wër. ba tey rek ñuy des ci xibaaru coronavirus fële ca Touba Toul ca école bu ñu naan école un rek. fa feebar bi daal di dugg rek ba directeur école ba daal di ci ñàkk bakkanam ci ñoo ci noonu nag am na ci tamit ñaari jàngalekat yoo xam ne rek bañ leen testé dañoo daal di positif ba fi ñuy wax ak yéen nag école boobu di école un ca Touba Toul dafa tëj ay buntam maanaam ndongo ya rek jàngatuñ ci noonu ñi nga xam ne nag ñoo di service di service d'hygiène daal di nañu dem ci boobu boobule école ngir rek désinfecté ko ba ndongo ya mën a delluwaat ca classe ya. ba tey rek ñuy desandi rekk ci xibaaru coronavirus ginnaaw bi ñu nemmeekoo nag ci fan yi rek feebar bi ni muy gënee bari fii ci senegal kii di professeur Souleymane Bouba bokk ci jëwriñ yi nga xam ne rek ñoo ngànk lépp rek lu jëm ci wàlluma wër-gu-yaram fii di senegal daal dina xam ne rek feebar bi dafa am beneen bu bees rek bu dugg bu tudd variant britannique maanaam moo tax rek mbir mi di gën a métti rek saa yu ñu xëyee li ni mel nag mu ko xamle fële rek ca RFM umma islamique bi daal di yeewoo aw tiis ginnaaw kii di Mourchid Iyane Thiam génne àdduna rek bi ci guddi ci feebar boo xam ne rek da koo tëraloon lu yàggula dara kii di Iyane Thiam nag nekkoon président de la commission d' observation du croissance lunaire daal dina génn àdduna démb ci guddi ci noonu rek ñii di groupe Equivox ñu ngi koy euh, jàll ay mbokkam di ko ñaanal rek fu mu jëmm yal na ko gënal fii mu jóge ba tey rek ñuy wéyal xibaar yi ci Equivox TV ñu jël woto rek dem fële ca ngàcc naw bi foofu nag la fa am nag di lu yéem ab accident rek moo fa am ginnaaw ba ab mini car ak camion mbëkkante rek ba juróom ñeenti nit rek ñoo ci daal di ñàkk seen bakkan nit ñu bëri tamit jot nañ cee am ay gaañu gaañu yu métti ci noonu nag ki nga xam ne rek moo di le ministre Mansour fay ak gouverneur Kaolack ba daal dinañu wàcc rek ca boobu le gox rek liñ nemmeeku mooy buñ tegal buñ tegoon mbir mi ci yoon rek accident bi mën na ñàkk ndax ki nga xam ne moo di minicar bi dafa surchargé woon 19 place rek la waroon def waaye rek 32 passagers la mujj yebb ci boobu le minicar ba tax nag accident bi mu amee rek ñu ci bëri daal di ci ñàkk seeni bakkan ñu dem ak yéen fële ca tribunal bu Dakar kii di Assane Diouf ñu koy dàkkantale rek l'inspecteur public numéro en daal dina génn kaso nege ni démb bañ ko àttee nag Assane Diouf daal nañ ko condamné rek trois mois de prison te buñ xaymaa rek. ba mu tëddee kaso ak léegi rek dal dina def euh, huit mois ci noonu nag ki nga xam ne rek moo di euh, maître Ciré Clédor li la mu xam ne rek mooy euh, war nañu saytuwaat liggéey bi rek ki nga xam ne moo di procureur de la république ak yenn cabinet yi ni ñuy doxalee seen mbir ndaxte buñ ko tegee ci yoon kii di Assane Diouf diir ba nga xam ne rek tëdd na ko kaso waru ko woon tëdd jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur Equivox TV fi la ñuy yem ak yéen tey ci xibaar yi di leen jox dig daje rek suba incha allah Thank you.